c'est à nous aujourd'hui yaa ngi am le directeur de l'horticulture muy maire bu a bokk ci parti bi nekk au pouvoir mu di APR moom ba mu ciy bokk nag moom ra kiiwul de moom dafa cee teel ah, waaw moom dafa teel dugg ci APR moom dafa teel lijjanti waaw ah, moo tax ah dafa teel a gëm APR dafa teel a gëm APR xam nga séeréer la kii fier mais est-ce que gëm ko après ah? PDS PDS nekkoon de ah ndeysaan. baabu baabu xam na ko de ndeke. baabu dugal na la benn kii de. baabu dugal na benn kii de li may bulet bu tàng jël. dañ lay jox bulet bi rek nga def. non xam naa sa waaye xam nga affaire ak. PDS xam nga lu mu def. mais ñoo bokk dégg bàyyi de. ah. yegg nga ci. très bien. laasana. waaw borom horticulture ngi nii. mi nga xam koy dooree ak sànq li nga xamante ne junj nga ko mooy rentrée gouvernementale bi ginnaaw vacances yi nga xam ne euh, gouvernement bi mu ngi ko doon observé ci euh, weer bi nii ñu euh, génn tey ji ni ñu war a dooraat conseil des ministres yi ak peut-être sujet yoo xamante ni intéressé na Sénégalais ñu ko doon wax inondation yi accident yi ba ci li xew ci institution Sainte Jeanne ndax jàpp nga ni tey jii sujet yooyu noonu mooy li gën a soxal askan wi gouvernement bi war ci addu parek addu yam ci jël ay mesures nii de manière théorique mais ci jël ci ay solutions yoo xamante ne askan wi dinañ ci mën a gis seen bopp. jërëjëf Lassana wax nga dëgg euh, effectivement euh, rentrée bi euh, am na day symboliser retour ci liggéey bi de manière officielle la ñuy wax. waaye li may njëkk a leeral mooy liggéey bi mosul taxaw. du yéen waa presse laa koy wax parce que yéen a koy relayer activité ministres xanaa sénégal yi laa koy fàttali. def naa mën nga visiter ministres yi yu bari tey. ku ci mel ni ministre de l'agriculture professeur Moussa Baldé ñu profité pour rafetlu liggéey bu am solo bi muy def gis ngeen tournée yi mu def initiative yi mu jël bi nawet bi amee jafe-jafe ci départ bi nga xam ne président la République moo ko ko wax ci jàppale ñi nga xam ne jiwoon nañu mu mu yàqu mm-hmm. ci ñu amaat jiw amaat engrais mais loolu dem ci terrain bi moo tax mu xam ko mm-hmm. dem ba Kaolack ngaan ak fu nekk jël fa ay mesures am solo jëm ci ñi def agriculture presque biologique ci décider léegi faire euh, subventionner intrants organiques yi nga xam loolu mosu fi am ci ci réew mi pour que ñooñu aussi comme xeetu mbéy bu am valeur ajoutée la ñuy def ñu mun ko yaatal ku ci mel ni euh, soxna Néné euh, Fatoumata Tall gis nga ko mu ngi ci terrain bi vacances citoyennes ba nga xam ne wane na rupture bi vraiment dem ci tool yi mmh. maanaam vacances yu utile euh, vacances citoyennes bi tout vacances bi sax daanaka xawoon nañ ko mën a dindi parce que ku ne xam nga ne nekkuñu woon ci vacances au sens premier du terme mmh. ci liggéey la nekk mmh. fan yëpp ku nekk gis nga ko ministre Mansour Faye même chose ci affaire ndox mi Serigne Mbaye Thiam gis nga ko euh, euh, vraiment suñu frère le ministre Fofana Euh, Abdou Karim Fall ministre de l'urbanisme mais vraiment ñoom ñëpp ñu ngi ci terrain bi di dem di ñëw taxaw loolu moo wane ne vacances waxin la rek xaw ma sax nu ñu ko mënoon tuddee bu doon mën nañu ko changé tur bi sax parce que Sénégal yi moom xam na seen affaire bu ñu nee vacances rek. Mhm. au sens premier du terme. maanaam conseil des ministres rek moo amul woon. mais léegi moom jërëjëf la naan la sonnul comme ni ko xale bi waxee. donc euh, euh, conseil des ministres moo amoon pause mhm. mais liggéey bi. mu ngi doon continuer li ko waral lu la mën a demee Lansana parce que euh, fast track bi ñuy wax c' est vraiment fast track avant l'heure lañ mës def ma loolu laa wax bu dee mën bu dee on pouvait accélérer l' accélération dama naan fast track c' est accélérer l' accélération rek defe naa accélérer la cadence. Mhm. du lu bees. kañ la woon. limite limite d' euh, suñu sœur boobu euh, ancienne premier ministre. ancienne garde des Sceaux ministre de la justice. borom conseil économique social et environnemental président du conseil économique social environnemental. Mm. xam nga loolu yàgg na. ba ñu accéléré ci wet ci wet yëpp moo tax tey programme bu mel ni PUDC Nicolas umpul kenn ci Sénégal na ñun waa kaw gi. Mm-hmm. ba ko président yëkkatee. mais dafa mel ni bi dafa ñu yóbbu ci ngiroo de. non non yóbbuñu ci benn ngiroo au contraire ñun sant bu mag lañ lañ rôle bi PUDC ci réélection président de la république. Mm-hmm. gi li ñu représenté ci ci ci ci réew mu ba mu ko defee waa ñu ngi dee jamono ñuy wax waaw maa ngi ñëw maa ngi ñëw daa ñëw ci loolu nattu fi lañ ko fekk yàlla moom mooy dogal yenn yi mais dama lay wax li nga xam ne motuwaay moo war nguur mu jël ko ci régime am pour wane ne bëgg naa mbir yi bar maanaam baral bi daal laa bëgg wax jiitu na fast track loolu laa bëgg a leeral mhm, ma jaar ko ci wax ji ak ci jëf-jëf ma doon jël programme bu mel ni PUDC nga xam ne ci juróomi at parce que bi mu ko yëkkatee yàggul. jox ko PNUD ndax xam li mu bëgg moom président de la république. ci jamonoom ñëpp di wax ne non loolu du yoon dugg na fii génn fii lu mu indi mooy sénégale yi ëpp ci sénégalais yi gis seen bopp. waaw loolu ak affaire PNUD ak affaire euh, ay marché public ak yooyu lan moo ëpp doole sénégalais yi ak transparence boobu ñuy woote. lan moo ëpp doole kon doxal lañ transparence ndax déglu leen fi benn cas bu bu bu bu jàdd yoon mais réaliser na aussi li mu bëggoon. Prodac muy jëm kanam mais Prodac xanaa seetlaan loolu télé barke dem hmm. nene Fatima Taal dem na fa la fa nekk nee na moom dafa yéemu man suivre naa ko te te nag ci ci affaire horticulture mbay mu yéeme yu fa xale yi di béy hmm. di produire lu bari nga gis batañta bi gis kaani bi gis soble bi gis lépp hmm. mbay mu mu extraordinaire te mu ngi xëyee fii ci Sénégal fii ci CFA ci wetu Sédhiou loolu ñu ngi révolutionné réew mi te loolu euh, appliqué principe bu fast track moo waral. loolu am kon fast track boobu ñun ñu ngi koy ñu ngi rafetlu parce que xam nga gis-gis aussi borom réew aussi njiitu réew aussi gis-gis bi la ñuy xaar ci moom. Euh, message yooyu day c'est mobilisateur. moo tax mobiliser na gouvernement bi gis nga ministre yi. mobiliser na Sénégalais yi. commune boo ci dem ñëpp a ngi taxaw ci jëmmal gis-gisu président. yàgg nañoo war a set. yàgg na ak ñuy setal mm-hmm. mais dañ ko gën a baral très bien mm, ndax li président wax ak ñu ngi koy xaar ci yeneen domaine Babou ju ñu na ko léegi am ay sénégalais yu nekk ci jafe-jafe lu ak accident ndax foofee aussi dinañ xaar à partir de cette rentrée là ngeen def ci ay jéego yoo xam ne vraiment euh, loolee dina nekk vieux souvenir ak affaire carcération c'est ça c'est ça tout à fait yi am ci Rebeuss bu am ca prison bu Diourbel beneen waaw indi sax mooy plutôt ñoom ci li jàpp mooy rendre compte président de la de manière officielle conseil des xam nga bërëb bu ministre yi di jokkoo ak président de la République ci seen liggéey di nat di ko natt ak yooyu moom la. kon mënuñ ko faa mënuñ ko faa ñàkk a defee. kon dañuy rendre to compte ci li ñu def ndax mosuñ cee jóg. Mhm. ci affaire inondation yooyu. mooy am na ci ma fàttali nag ne inondation attention conséquence la am na ci ñoo nga xam ne du ma tudd kenn nag. Mhm. mais nañ nangu ne am na ñoo nga xam ne bañ koy def ci juróomi at yi passé du ci juróom ñaari at yi du ci fukki at yi passé waxin la maanaam am na ay ay pratique yoo nga ne conséquences yi la ñuy dund tey par exemple boo jëlee li ñuy wax ci ci tubaab ci concept dëkkuwaay zone non édificante yi mhm. maanaam bëri bi nga xam ne dañ ne kenn waru faa dëkk. mais mais docteur docteur fa dëkk wala waruñu fa dëkk. non Grand Yoff waruñu fa dëkk wala waruñu fa dëkk. non naa ñëw ci ñaari cas am na cas yoo nga ne lu bees parce que séntu wuñu ko foon ndax taw bi mën naa passé sax fa mu nekkoon ba ñuy taxawal quartier yooyu loolu mën naa am mais loolu moo ci gën a néew kaa i may wax ma quartier yi nga xam ne war nañu fii place ndox la nit ñi dëkkoon fa avant ndox mi dellu ci place am ñu coow néew ma nag rôle nguur mooy taxawu leen ak quelle que la situation taxawu leen génnee leen ci situation boobu c'est anticipé donc rek mais anticipation bi nag ci lañ nekk nii mooy gis nga. laasana Gagny Sakho gis nga liggéey bi muy. liggéey bi muy def le DG c'est l'occasion ñu félicité ko laasana Gagny Sakho bu ONAS. Mhm. d'abord jël ay mesures yu wér pour saafara yéen yi mais aussi conscientiser ak sensibiliser Sénégalais yi. pour ne leen fii regard bi bu fa bu ko bouché. bu fa def mari bu fa def nangam. Mhm. donc foofu y' a a y' a des choses à faire au niveau de l'assainissement mais mais yi conséquences wu ay pratiques la. Mhm. mais yenn yi lu ñu war a jël la ay matuwaay. à partir de maintenant. mais terre bi nii tey am na ñu bëri ñoo xamante ne maa ngi leen di dégg ci série ay reportages yi ngeen mm-hmm. def. Mm-hmm. terre bi am na ay ay yu yu jéggi dayoo yu mu def. am na ñoo xamante ne mosu ñoo inondé. Mm-hmm. ci wàllum terre bi lañu ñu commencé inondé. effectivement yooyu tamit dafay nekk ay ne duñ mais yooyu tamit nag. ñun dafay ni amul ay ingénieurs yu nekk ci ginnaaw ñu bàyyi xel. waaw def études yi ah études yi quoi waaw. waaw perfection mënul am cest mënuloo maîtriser tout am na benn pourcentage benn. Euh, to boo nga xam ne mën na am faay ci li nga concevoir surtout infrastructure yu mag yu mel nii il faut nga mettre ko à l'épreuve léegi il faut mu taw pour nga xam ne ndekete autoroute à péage bi mhm. fi ñu def kii bi rajo bi wala pële mënuñ ko war nañ ko nag loolu mooy njëriñam mën a anticiper ci ah, yenn xeetu mbir yooyu ci loolu laa ne ma ne mhm. pour nga anticiper ba bu tawee dara du am am na problème bu leen jëlee dañuy def ay simulation. dafa euh, ndox bu bëri ko. pour xool ndox bi exactement la qualité comme la ah, qualité de nos infrastructures daggu ma ko sax mais VDN 3 bi euh, niñ ko. ah mu li tali boobu bari te lu bees la. 12 13 personnes déjà voilà parce que hmm. passerelle bi pareegul. mais passerelle yi dama gis dimanche ñu tëj ko bi ma fa jaaree tey ndekki doonaan doon def. xam nga kon loolu waroon nañ ko anticiper. Mhm. parce que li mu rey dafa bari. Mhm. waaw mais problème bi mooy euh, doo boobu bi ngay def bi ñuy def. simulation doo daan est du doo nit. xam man <laughs> est-ce que du nit lañ teg foofu. Ah, man bi parce que Sénégal dañuy wax doo daan mais man gisuma fi doo daan gis ay ay ay ay ay ay nit yu. ne ne ne la ay ralentisseur la rek. a mu gën a <laughs> voilà. Eh. donc léegi dama jàpp ne liggéey yu mel noonu pour lépp mat. Mhm. vraiment dafa dafa yombul am na ci étape yoo xam ne moom il faut nga euh, euh, mettre mbir mi à l'épreuve day am sax euh, ay essai même ci liggéey nii da ngay ñëw ñu ne dañ waa ji dañ ko mettre à l'essai te pourtant am jël nañ CVM xool nañ ko gis nañ xam-xamam gis nañ fi mu jaar mais dañ ne oh, am na 6 mois wala 3 mois à l'essai ko mettre à l'essai parce que xam nañu. déedéet euh, professionnalisme. essai la kon nag attan essai bu métti la kon ñu def attention. essai kon. donc métti waaye test am ci lu nekk. lu jëm ci accident yi nag. dansé na wax nga ko loolu c'est l'occasion am naa ci wàll. Mm. ma vraiment beesal sama masu ci sama njaboot fële sama commune. Mm. xam naa ne yëg ngeen ko mm. ñetti. Euh, jigéen xale yu jigéen mm-hmm. faatu nañu fa ci lab ci benn kamb ndax mm-hmm. dañoo demoon euh, taxani mm-hmm. mat xaw ma xam ne luy taxan. dëgg la maanaam wuuti ah, bois mm. euh, moom la ñuy toggee. Mm. ci gott gu wet yi ci ci àll bu jege bi. Mm. ñoom lañ def ginaar du leen topp xam nga nañu ginaar du bàyyi kuy kuy bojj di topp kuy taxañ. ah, ah parce que du ci gis boppam. donc ñu dellu si far ñu ngi leen di masawu bu baax l'occasion ñu ngi leen di di euh, maire bi. man bitim réew la ma fekk. mais taxawaay bañ ci war a def. def nañu ko. tout à gouverneur ak équipe CRD bu Kaolack. taxaw nañu ci. Mm-hmm. mais c'est l'occasion ma beesal. sama appel. Mm-hmm. ci nguur gi. Mm-hmm. ci président de la République. mais aussi ministère yi yore affaire solidarité ak dimbale lañ ca mën ñun. def nañ ko ñu daañ ko continuer. mais am na ñoo xam ne nguur moo ko gën a mën. ñu ngi woote ñu jàpp ñu ci lu jàppale njaboot yooyu. vraiment pour loolu wàññeeku mais. loolu xam nga ay accident la. am na aussi ay yeneeni bërëb. naa nag dafa am yu mu àndal. ni mu amee xéewal te jàpp nañ ne xëy na moo ci ëpp. ndax tawal ay millions wu sénégalais. ñu amee ci dund. amee ci lu ñu jaay am. Mm. seen lu ñu téye seen sutura. Mm. loolu gën na yaatu lool natt yooyu mu àndal waaye. natt yi bu ñu sañoon du am. très bien mais ñu ngi masawu ñu mu ci Sénégal yëpp ndax yéen a ngi suivre presse bi. di masawu ñu di wax ne nguur gi. Mm. mu ngi ci taxaw ñu ngi rafetlu aussi ci ndimbal yi nga xam ne. fu ñu ko yëgee. ñu ngi jóg di fa dem. di di di rafetlu loolu.